mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa al Bachir di ko ñaanal yàlla mu may ko fanu gudd lool may ko wér ba naal yi nga xam ni naal na ko ci liggéeyal diine ci liggéeyal xam-xam ak ci liggéeyal yoon wi yàlla may ko mu fekk meññitum lépp ci barke Sëriñ Touba gannaaw loolu it ñu ngi nuyu ñi nga xam ni ñooy njiit ci muqaddimatul xidma dale ko ci sëñ Aafiya Buso ak mbooleem ñi nga xam ni ñoo nekk ci ronam di liggéeyal xam-xam di liggéeyal yoon wi di liggéeyal it jumaa ji di am mbégte lool ci dajewaat ak yéen ci jataay yu màgg nii di jataay yi xam-xam ci jataay yoo xam ni jataay yi fàttalante la jataay yi jariñante la jataay yoo xam ni alhamdulillah ña nga xam ni ñoo koy taxawe di ko saytu dëgg-dëgg taxawaay wi ku ko gis wala nga dégg ko danga ko rafetlu lool ndax thème yi nga xam ni daa iman ñu ngi ko fi traité thème la yoo xam ni yépp rek dafay delluwaat ci xam-xam xam-xam boo xam ni it xam-xam bu set la bu sell xam-xam boo xam ni ku fi jógee wala ku ko dégg da nga ci mën a jariñoo da nga ci mën a yokkoo ci sa diine ñu ngi leen di ziyaara ñoom ñépp di leen nuyu ñoom ñépp di ñaan yàlla mu defal leen defal ñu tawfiq zahiran wa batinan bi juudihi wa bi karamihi wa bi manni gannaaw loolu thème bii nga xam ni moom lañu ñu sas pour ñu waxtaan ci comme ni ko sunu mbokk daara waxe léegi al ustaaz cheikh alxaaji njaay mooy tem boo xam ni mooy woote ci yàlla déggin gañ ca war a am wala lan mooy woote ci yàlla ak lan mooy keno yi nga xam ni ci la woote ci yàlla tegu mu doon tem bu am solo comme tem yi fi jaar yépp waaye solos tem bi it daf ca bokk ni tem la boo xam ni dafa soxal jullit bu nekk ndax jullit bu nekk imma nga bokk ci wootekat yi wala nga bokk ca ñañuy woo nga bokk ci wootekat yu mag yi wala nga bokk ci wootekat yu ndaw yi wala nga bokk ci ñañuy woo kon tem la boo xam ni ñépp la soxal ñépp a war a xam thème bii li mu làmboo donte la mu làmboo yépp ci ay maanaa mëneesu la traité lépp ci benn jataay waaye incha allah danañ ci def ay tënk yoo xam ni mënees na caa tegtaloo ngir xam lu yaatu ci nga xam ni moom la tënk yooyu làmboo kon bu ñee woote ci yàlla mafhumam mooy lan mooy woote ci yàlla bu dee woote moom arab baat bi mi ngi koy wax ad daawa daawa mooy woote daawa nag ci arab cosaanam mooy daa mooy woote na daawatan mooy ak woote lañu jubli ci woote nag mooy ak càkkutéef la cëkka ngay woo ngir mu wuyu si la kon ki nga xam ni daawtahu yaa ngi ko woo pour mu wuyu si la mu wuyu si la imma ci jëmmam wala mu wuyu si la ci ay maanaa mooy loo teg ci loxoom ci ay xeeti xam-xam ak ay xeeti yéete yoo xam ni da ngay sàkku ci moom ngir mu wuyu si la ci woote nag yenn saa yi dana doon woote jëm ca lu baax waaye yenn saa yi dana doon woote jëm ca lu bon kon woote dana doon woote jëm ci njub waaye woote dana doon woote jëm ci juba bi jëm ci cànkute lay wone it ni woote dees na woote jëm ci cànkute mooy yonent yàlla yuusuf alayhi salaatu wassalaam waxoon na ca jamono ya nga xam ni soxna sooson ko gundu xatal ngir di ko woo ci loo xam ni neexul yàlla yonent yàlla yuusuf ñaanoon sunu boroom ne ko rabbi rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi yàlla kat dugg kaso moo ma gënal wuyu soxna sii ca la may woo ndax la mu koy woo jëm ca lu neexul yàlla la kon ak daawa woote dana jëm ci lu neexul yàlla comme na muy jëmee ci lu neex yàlla bokk na ci liy firndeel loolu it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masoon naa wax ay saxaaba yoo xam ni dañu jote woon ci seen biir ku ci nekk woo sa qabila ba nga bokk giir ba nga bokk pour ñu ñëw faral la pour ñu ñëw xeexle la yonent bi ne leen abi daawal jaahiliyati wa ana bayna azhurikum ndax da ngeen di woote wooteeb jaahiliya wooteku ceddo te maa ngi fii ci seen kanam jógeegu jógeeguma fi kon ad daawa dana nekk ilaa xayrin dana nekk it ilaa shar dana nekk ilaa xaq dana jëmit ilaa baatil bokk na ci daawa yi nga xam ni daawa ju jëm woote gu jëm ci dëgg la mooy wootey sunu boroom comme ni mu ko waxe lahu daawatul xaq wootey sunu boroom laa shakka ni moom rek mooy woote boo xam ni wootey dëgg la yonent bi it ba mu yónnee ca Hiraql di buurub ruum boobu bokkoon na ca la mu ko waxoon ne ko ad'uka bi diaayatil islaam maa ngi lay woo waaye du woote jëm ci sama bopp waaye woote jëm ci lislaam la mu'minu aali firawna moom it ba mu tuubee daan nëbb tuubam bis ba mu feeñee ne ab jullit la bokkoon na ca lam waxoon wa yaa qawmi maa liya ad'uukum ila najaati wa tad'uunani ila naar kon nga gis aaya boobu boole na ñaari woote yépp yéen samay mbokk lu ngeen xewle lu xew ba tax ma leen di woo ci yoon woo xam ni bu ngeen ca jaaree mu yóbbu leen aljanna yéen ngeen may woo ci yoon woo xam ni buñ ca jaaree mu tàbbal ñu safara kon woote jëm ci aljanna am na mooy woote jëm ci lu baax waaye woote it jëm safara it am na te mooy woote jëm ci sofaan bu fekkee ni nag woote bi nga xam ni mooy woote bi ñu tax a jóg mooy woote jëm ci yàlla woote googu kat boroom xam-xam yi taarif nañ mafhumu nañu mën a dégge woote boobu définir nañ ko ne mooy tabliixul islaami linnaas wa tab wa taalimuhu iyaahum wa tatbiquhu fi waaqii lxayaa am nañu ne mooy jottali lislaam ba nit ñi jot ci nit ñi nga jottali leen lislaam ba nit ñépp jot ci jottali goo xam ne yemul ci dëkk waaye yemul ci xeet waaye yemul ci askan waaye lislaam nga jottali ko mu jëm ci nit ñépp xamal leen lislaam it ak yacaaju yépp waaye it loola ngay woote nga jëmmal ko ci sa bopp fexe it ba nit ñi jëmmal ko ci seenu dundin nañu ne loolu mooy woote jëm ci yàlla am na ñeneen ñu ne woote jëm ci yàlla moo mooy albayaanu wa tabliigu li hada diin usulan wa arkaanan wa takaalifa walxassu alayhi wa tarhibu fiihi nee nañu mooy leeral ak biral ak jottali diine jii di diiney lislaam li aju ci usulu diine ji te mooy pas-pas ak lu aju ci ponki diine ji mooy ponki juróom yooye ñu xam ak juróom benn yooya aju ci pas-pas waaye jottaliit li aju ci takaaliif ndigali sunu sunu borom yi jottaliit ba nit ñi xam ay tereem soññee ca ñaaxe ca xirtal ca it nit ñi nee nañu am nañu ne loola mooy woote jëm ca yàlla kon woote jëm ca yàlla daal ci gàttal mooy xamle lislaam ci anam goo xam ni anam gu matale la anam gu jotale la xamle ko xamle googu nga def ko sa wazifa def ko sa liggéey comme ni ko yonent yi salawaatullahi wa salaamuhu alayhim defe woon seen wazifa kon loola mooy taarifu ad daawa ila allahi fi istilaahi al ulama bu fekkee ni nag daawa moom lan mooy mawduam mooy woote jëm ca lan ca lan lañu war a woote jëme ca boroom xam-xam yi ne lañu war a woote jëme ca mooy lislaam ci gàttal mooy lislaam boo wootee jëm ca lislaam mooy ni woote nga jëm ca yàlla boo wootee jëm ca lislaam mooy woote nga jëm ca alquran boo wootee jëm ca lislaam mooy woote nga jëm ci yonent bi woote nga jëm ci nit ñu baax ñépp ndax nit ñu baax ñi amuñu woon lu dut yooya kon woote mawdu am mooy fa muy tàbbi mooy woote jëm ca lislaam lislaam bi nga xam ni moom la yàlla joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallama te it mu màndargale ko alquran gii nga xam ni moom mooy téereb lislaam bi kon woote jëm ca loola mooy mawduu woote bu fekkee ni nag àttey woote la alquran leeral na ci ay laaya yu bari sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it leeral na ci ay xadis yu bari li nga xam ni mooy àtteb woote jëm ci yàlla ndax it xamees na ni woote jëm ci yàlla moom alquran la mu leeral la mu jàngale mooy ni mooy wazifay mooy liggéeyub mooy xëy ak gontu yonent yépp te mu doonoon fardu ayni ci ñoom farata la woon ci yonent yépp ndax amuñu métier amuñu lenn loo xam ni daan nañ ca xëy daan ca gontu lu dut rek ci woote ci yàlla kon mooy doon moo doonoon seen wazifa moo doonoon seen profession moo tax mu doonoon fardu ayn ci ñoom waaye bu fekkee ni woote la ci ku dul yonent am na ci ñoo xam ni fardu ayni la doon ci ñoom comme na mu doone woon fardu ayni ci yonent ya ci koo xam ni yaa xam lislaam xam gu wér te fa nga nekk nga wéet fa ci xam ko te dafay wane ni woote ci yàlla non seulement yàlla da ko digle waaye yàlla dafa joxe ay tegtal yoo xam ni yow wootekat ba ca tegtal yooyu nga war a jaar ci ni nga war a comporté woo yow ci sa bopp waaye it wane na ña nga xam ni dañu wuute woon ak ndigal am ñu leen mënoon a tere te daawuñu leen tere ba muy mbugal ñooñu daf leen boole mbugalaale leen ñeneen ña nga xam ni dañ daan wuuteeg ndigal am ñu leen daan tere ñooñu ba muy mbugal ñooñu dafa seppi ñi leen daan tere ber leen dal di mbugal ña ca des kon loolu yëpp day wane ni woote ci yàlla dafa am solo lool ndax mooy wawaif yi nga xam ni moom la yonent yi gàlloo woon def ko seenu métti daan ca liggéey bu ñu jógee ci bunt boobu dañuy dem ci li nga xam ni mooy ahdaafu woote ca yàlla woote gi ñuy woote ca yàlla lan lañu ca daa jublu lan lañ ci war a jublu jubluwaayu woote ca yàlla bari na lool bokk na ci bayaanul xaqi wal balaaxul mubiin bayaanul xaq mooy leeral dëgg ak jottali goo xam ni jottali gu biir la jottali gu fés la jottali bokk na ca la koy firndeel li sunu boroom wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ndax yonent bi ñaar la ko yàlla joxoon alquraan la ak lay leeral alquraan di ko firi alquraan ja nag moom la ko wax ne ko jottalee ko ni ma la ko jàngale yow yonent bi jottali lii ma wàcce ci yow mu jukkee ci sa boroom kon loola ak woote la kon yonent bi wooteel nit ñi jëm ci alquran jii nga xam ni moom laa wàcce ci yow mu waxati ko ne ko wa anzalna ilayka dikra li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim wa laallahum yatafakkaruun wàcce naa ci yow alquran waaye nag soxla naa it namm naa nga leeralal nit ñi alquran jii ma wàcce ci ñoom ndax alquran bi am na ci laaya yoo xam ni boo leen ko leeralul boo leen ko feccalul feccilul duñ ko mën a feccil seen bopp kon loola lépp day wone solo si nga xam ni moom la woote jëm ci yàlla am ba tax yàlla jox yonent bi ñaari ndigal yu jëm ci woote benn bi mooy jottali alquran beneen bi mooy leeral ak fiiri la nekk ci alquran kon bokk na ci hadafi woote jëm ci yàlla mooy jottali alquran ak leeral alquran leeral boo xam ne leeral gu biir gu fës la bokk na ci it ci ahdaaf yi naxanteeg nit ñi pour ñu wuyu si woote bi yàlla bi jëfe ko ci wax waaye jëfe ko ci jëf loolu tax na sunu boroom daan wax ne moom yooyu yàlla kat wala qad baasna fi kulli ummatin rasulan an yabudullaha wajtanibu taaxut mu jël wooteeb yonent yi def ubbitey woote boobu mooy ne nit ñi nañu jaamu yàlla moom rek te bàyyi taaxut nga xam ni mooy seytaane ak xërëm yeeg xàmb yi yàlla ne na yonent bu ma mës a yónni loola laa ko yónnee ne nañu jaamu yàlla rek kon nañu wuyu si wooteeb wi leen yonent yi di woo ci jaamu yàlla ci moytu jaamu taaxut te mooy xërëm yeeg seytaaneeg lu aju ca yooya bokk na ci it hadafi woote mooy at tabshir wal inzaar bégle ak xuppe ndax ña ngay woo ñaar lañu ñii danañu wuyu si ñii danañu lànk ña dëgër bopp nga xupp leen ña wuyu si nga bégal leen wa ma nursilu l mursalina illa mubashirina wa mundirin yàlla nee na yónniwuma yonent yi lu dul ñu doon ay béglekat doon it ay xuppekat ndax ku ci nekk yonent yi daan nañ jëflanteeg moom ci dayo bi nga toll ci wuyu seenug woote ak ñàkk wuyu seenug woote googu bokk na ba tey ci jubluwaay yi am ci woote jëm ci yàlla islaaxu nufuusi wa tazkiyatuha yéwénal bakken yi ak sellal ko defar nit ñi ci gàttal kon defar nit ba dawru bi tax sunu boroom wàcc ko ci kaw suuf mu mën a jooxe dawru boobu comme ni ko suñu borom bëggee li tax yàlla wàcce ko ci kaw suuf mooy mu jaamu ko sellal jaamu ga kon woote ci yàlla bokk na ca la ca sunu borom jublu mooy day defar nit ñi ba tax mission bi tax yàlla wàcce nit amaana bi tax yàlla wàcce indi nit ci kaw suuf nit ki man ko jooxee comme ni ko sunu borom bëggee subhaanahu wa taala moo tax sunu borom di wax ni هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين من يالا مو يوني تي أرابي تي بير أرابي وخل بعث إلى الأميين waaye fi ummiyin ci biir arab yi loolu la muy tekki mooy ni yonent bi ci seen biir la jóge du ni ci arab yi rek lañ ko yónni waaye nag ab arab la bokk ci arab yi te arab yi am mbind akum njàng bariwul woon ci ñoom moo tax mu ne moom yàlla mooy ki yónni ci biir arab yi nga xam ni am njàng bariwul woon ci ñoom yónni na ci ñoom ab yonent bu bokk ci ñoom yonent boobu nag saa su ne mi ngi leen di jàngal aaya yàlla yi te muy alquran waaye it mi ngi leen di tàggat di leen defal di tazkiya seeni bakken di tarbiya seen ruux di leen defar di leen jàngal téere bi di alquran di leen jàngal it xikma te imaam Shafii nee na xikma mooy sunna di leen jàngal sunnaam te fekkoon na lu jiitu loolu ñu nekkoon ci cànkute cànkute goo xam ni gu bir la kon nga gis ni yàlla ba muy wax la tax mu yónni yonent bi nee na bokk na ci ngir mu jubbanti nit ñi defar nit ñi nàmm ruu yi defar bakken yi ba mission bi tax yàlla bind doomu aadama doomu aadama yi mën a joxe mission boobu ba keroog buy dajeeg yàlla fekk mu mën a ab ngir mën a am ngërëmal sunu borom. bokk na ci ahdaaf yi ba tey iqaamatul xujjati wal i'daar ila allahi bi adaa'il amaana nee na bokk na ci taxawal aw lay taxawal aw lay ak dogub ngànt wëlis doomu aadama yépp ndax nag yàlla ba mu bindee doomu aadama ca ba mu leen waxee alastu bi rabbikum ñépp a d'accordoon ci ne ko yow rek yaay sunu boroom yaay sunu borom nag la muy tekki mooy ni bu ñu wàccee ci àdduna yow rek la ñuy jaamu yow la ñuy jaamu la muy tekki mooy ni li la neex ci la ñuy ci la ñuy nekk li la neexut duñ ca nekk waaye nag kenn ci doom aadama yi ba nga juddoo ba màgg fàttaliwuloo fàttaleekuwuloo loola fàttaleekuwuloo bis ba yàlla di wax alastu bi rabbikum yonent yi nag bu bu doom aadama yi desoon noona ba wuyu ñu seen borom bu leen laajee dañuy wax ni fàttalikuwuma ko ndax kenn ci ñun fàttalikuwul bis booba ku ko jàngut xamoo woon ni loolu mas naa am ngir nit ñi bañ a yey yàlla ngir ñu bañ a am aw lay ci kawam moo tax yàlla dog ngànt loola moo tax mu ne rusulan mubashirina wa mundirin li an laa yakuna linnaasi ala allahi xujjatun ba'da rusul wa kaana allahu azizan xakima yàlla nee na maa yónni yonent yi ñu doon ñuy bégle doon ñuy xuppe ngir nit ñi bañ a yey yàlla bis penc ëllëg bis penc li an laa yakuna linnaasi ala allahi xujjatun ba'da rusul ngir bis penc kenn bañ a am xujja kenn bañ a am aw lay ca kanamu yàlla bis penc looloo tax nee na mu yónni yonent yi ngir mu fàttali ñu amaana googa nga xam ni moom la jàppoon ak ñun ci lu jëkk ñuy ñëw ci àdduna kon iqaamatul xujjati wal i'daar ila allahi bi adaayil amaana loola dafa bokk ci jubluwaay yi tax sunu boroom digle jullit ñi digle yonent yi ñu woote jëme ca moom kon muhimmay yonent yi mooy woote waaye muhimmay yittey ñi nga xam ni ñooy ña topp ñëw ca gannaawu yonent yi surtout bu fekkee ni dañu doon ay borom xam-xam seen muhimma it moo war a doon woote ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it firndeel na yàlla wax na ko loolu pour mu nettaliwaat ko ci alquran qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani mu ne yonent bi waxal ni woote jëm ca yàlla day wala lii ma nekke day mooy sabaw yoon yoon wii la ma yàlla xàllal ci yoon wii it la ma teg ma tegu ca dox ca te yoon wa mooy lan dama doon wootekat jëm ca yàlla woote laay def day sama liggéey mooy woote jëm ci yàlla waaye woote goo xam ni dama ci ànd ak ay dalil yu wér kéŋ woote goo xam ni àndul ak teñax teñaxi woote goo xam ni àndul ak à peu près waaye woote la goo xam ni day tegu ala basira tegu ci xam-xam tegu ci gis tegu ci yeewute nee na sama woote ci loola la tegu ndax nag yàlla ba mu digalee yonent bi pour mu woote dafa melal yonent bi ne ko wa daaiyan ila allahi bi idnihi wa siraaja munira nee na woote ga muy woote ci yàlla lu mu cay def ci ndigalal sunu borom la koy teg wa daaiyan ila allahi bi idnihi kon wooteem lépp lu mu cay wax lu mu cay def ci ndigal la ko daa teg kon looloo tax yonent bi ne yàlla ne ko waxal ni hadihi sabili lii ma nekk nii day mooy sama yoon wi nga xam ni fa la ma suñ borom teg te ca laa tegu mooy woote jëm ca yoonam wa waaye it woote goo xam ni lu ma cay wax lu ma cay def dama koy teg ci xam-xam waaye yemut ci xam-xam waaye dama koy teg ci ndigalal sunu borom it mu ne man noona laa mel waaye samay gaa ñi topp ci man it loola mooy rôle woowa ma am mooy seen taxawaay ñoom tamit ci woote gii kon loola day firndeel ni li yàlla digaloon yonent yi ci anami woote lu mel noona it la digal ña nga xam ni ñooy boroom xam-xam yi ci ab taxawaay woo xam ni dañ ko war a am ci woote jëm ci yàlla kon buñ jógee ci loolu dañuy dem ci arkaanu daawati ilallah woote jëm ci yàlla it dafa am ay ponk dafa am ay keno yoo xam ni ñoo téye woote booba dafa am loo xam ni ca la woote ba di aju te loola ci gàttal boroom xam-xam yi nee nañu ñett la ba ca jëkk mooy aji woote ji ñaareel bi mooy kañuy woo ñetteel bi mooy lañuy woote jëm ca te waxoon nañ ca la weesu ne lañuy woote jëm ca moom mooy lislaam bu ne nee lislaam mooy alquran mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñi nga xam nit ay nit yàlla lañ yoo xam ni ñoo roy yonent bi ci njàngaleem roy yonent bi ci wooteem seeni woote yépp mooy woote bi nga xam ni mooy mooy la nga xam ni moom la ñuy woote jëm ca waaye bu fekkee ni aji woote ji nag aji woote buñ la ko waxee mooy kiy jottali lislaam mooy kiy jottali woote boobu mooy kiy jàngale xamle gi nga xam ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan xamle mooy kiy doxit jëm ca ji ci appliquer ci jëfe ndigal yooya kon kooka mooy ki nga xam ni mooy wootekat bi wala ñu ne la wootekat mooy mukallaf bi nga xam ni moom la ñu wékk ci ndoddam pour mu woote jëm ca yàlla kooka nag laa bu dañu xam nan la war a mel ak moom mooy kan mooy kan moom mi nga xam ni moom la ñu gàll ci ndoddam pour mu taxawee woote woowa kon kii woote jëm ci yàlla ginnaaw bu ko suñ boroom xéewalee mu doonub jullit xéewal ko mu doon boroom xam-xam laa shakka ni war na xam ni wootekat bu jëkk mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni yow mii di woote ka ngay roy mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mooy wootekat bu jëkk ba moom mooy ki nga xam ni moom la yàlla désigné woon tànn ko ne ko jiiteel ma woote bii ci lislaam yaa ayuhan yaa ayuhan nabiyu inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadira wa daa'iyan ila allahi bi idnihi wa siraajan munira moom la yàlla waxoon ne ko yow yonent bi man day dama laa yónni nga doonub seede mooy yaay seereel yonent yële fa ji yële fi jiitu woon nga doon kuy bégle it doon kuy xuppe waaye doon kuy woote jëm ca yàlla waaye woote boo xam ne lépp ci ndigalam nga ko teg waaye it nga doon làmp boo xam ne làmp buy leeral nga làmp buy leeral xol yi nga làmp buy leeral jikko yi nga waaye làmp buy leeral ak nite nga kon yow wootekat bi war nga xam ni taxawaay wii nga am muy taxawaayu bu woote sa royuwaay ca woote booba mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent booba nag lii ndigal lii la ko yàlla jox pour mu wootee waaye nii la ko yàlla orienté ci na mu war a wootee tax na sunu borom naan ko wadu ila rabbika innaka la ala hudan mustaqim désigné naa la kon jógal woote jëm ci yàlla ta nga xam ni nag yow yaa ngi ci yoonu njub yaa ngi ci yoonu jub yaa ngi ci gindeeku goo xam ni ci yoonu wu jub xocc nga ne wadu ila rabbik innaka la ala hudan mustaqim mu waxati ne ko wadu ila rabbika wala takunanna min al mushrikin wooteel jëm ci sa borom te fexeel bañ a bokk ci ñi nga xam ne ay bokkaalekat lañu loola yépp ay ndigal la yu jóge ci sunu boroom mu jubal ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko orienté ci anam ga nga xam ni moom la war a wootee looloo tax yonent bi ba mu demee nag ba yàgg ci woote woowa daan na wone boppam ci ni li ko sunu boroom digal du dara lu dul muy woote jëm ci yàlla waaye muy woote jëm ci jaamu yàlla bañ a bokkaaleeg yàlla dara nee na loola mooy wooteem te ca loola la sax dàkk qul innama umirtu an aabuda allaha wala ushrika bihi ilayhi adu wa ilayhi maa dañ ma digal ma jaamu yàlla bañ a bokkaaleeg moom dara lii day mooy sabab woote man yonent bi waaye ci lii laa sax ci lii laa dëkk te duma ko bàyyi ba faw kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wazifaam comme ni ñu ko waxe mooy woote jëm ci yàlla te ci woote la sax nag ba keroog ba mu fiy jógee mi ngi seeraloo saxaaba yi ndax ci xejjatul wadaa mi ngi wax saxaaba yi ne yàlla kat daf maa digaloon ne naa jottali lam ma jox pour ngeen jot ci digal ma ne naa leen woo jëm ci yoonam wi amaana ëllëg dañan leen laaj ba xam lam ma doon jottali loo jottali leen jottali naa leen ko buñ leen laajee lu ngeen di wax saxaaba yépp waxandoo ci genn kàddu ne la la yàlla digal jottali nga ñu ko yonent bi dal di wax ne allahumma ashhad yow yàlla seedeel ne lii nga ma yónni ci ma jottali ko samay nit jottali naa leen ko ba ñoom ñu ngi nii tey seede nañu ni jottali naa leen ko kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam wazifaam moo ne woon daawa woote ci yoonu yàlla comme ni mu doone wazifay yonent yépp kon woote ci yàlla comme ni ñu ko waxee mooy wazifay yonent bu yàlla ma sa yónni ci kaw suuf bu ñuy jël misaal ci yonent yàlla nuux yàllaa ngi wax ci moom ne laqad arsalna nuuxan ila qawmi fa qaala yaa qawmi abudullaha ma lakum min ilahin xayru kon nuux wootee nit mooy woote jëm ci yàlla mooy woote jëm ci jaamu yàlla saxal ni dëggal wéral dund ci ni amul benn buur bu ñu war a jaamu bu dul yàlla yent yàlla huut tamit loola la ko yàlla yónni woon jëm ci ay nitam wa ilaa aadin axaahum huuda qaala yaa qawmi abudullaha ma lakum min ilahin xayru la yonent yàlla nuuxu waxoon la mu doon woote jëm ca yonent yàlla huudit ba mu ñëwee loola la doon woote jëm ca yonent yàlla saalix loola la doon woote jëm ca yonent yàlla shuayib moom it loola la doon woote jëm ca kon wazifa yonent yépp moo ne woon woote ci yàlla subhaanahu wa taala yàlla firndeel na ko ci anam gu gën a yaatu mooy laaya ji fi tuddoon sànq wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budu llaha wajtanibu taaxuut kon loola dafay firndeel ni yonent yépp ci bokk yam seen woote moo nekkoon woote jëm ci lislaam moo nekkoon woote jëm ci yàlla moo nekkoon woote jëm ci jaamu yàlla te moytu bokkaaleeg yàlla ki nga xam ni nag moom la ñu takliif moom la ñu gàll woote bi ca kawam kan mooy ki war a woote jëm ci yàlla ki war a woote jëm ci yàlla ci anam gëmu gën a yaatoo booy jullit bu nekk da nga war a doon wootekat jëm ci yàlla ndax nag ci jullit ñi la al umma al islaamiya di formé woo ci la composé woo kon umma bi ay jullit ñoo ko composé kenn ku ci nekk da nga am masuliya da nga am responsabilité ci lii nga xam ni mooy wooteb lislaam nga bay ci sab waar nga bay ci sab waar def ci sa wàll ba mu mat sëkk kon jullit bu nekk dañ laa togg dañ laa taklif ngir nga doon wootekat jëm ci yàlla donte nag seen dayog taklif dafa ëppante dafa wuute am na ñoo xam ni dawru ba yonent bi amoon moom la ñu am ndax la yonent bi jàngale woon dañ ko jàng xam ko man ko lool ñooña moom lu tolloog la gàllu woon ci ndodd yonent yi ci woote lu toll noonu moo gàllu ci seen kaw ñoom tamit ci woote surtout ginnaaw bi fi yonent yi jógee mu am ñoo xam ni ah seen martaba xaw naa gën a wàcc tuuti comme seen xam-xam yeggut fenn fi waaye am na ci wàll woo xam ni sunu borom may na leen ci ñu ràññee ci ci wàllu xam-xam wàll woowa it la leen ci war mooy ñu woote ci jëme ci yàlla ba wàll woowa gën a leer nit ñi kon woote jëm ci yàlla kañ ko taklif kañ ko togg ka ko war a def mooy jullit bu nekk donte seeni responsabilité ci wàllu woote woowa dafay ëppante donte seen responsabilité tolloowul donte ñii fardu kifaaya la doon ci ñoom ñële mu doon fardu ayni ci ñoom ñii mu doon mustahab ci ñoom ñeneen ñi ku ci nekk ak dayo bi nga toll ci xam-xam ak dayo bi nga toll ci responsabilité kon woote jëm ci yàlla jullit ñépp la war yaa xam jullit bu góor la wala jullit bu jigéen la ndax ku ci nekk saa yoo gisee loo xam ni neexul yàlla ak foo ko mën a gisee la la war mooy nga digle ca lu baax digle lu bon tere lu bon bu ko defee wàllu woote dox nga ci sa wàll sa kemtolaayu kàttan jële nañ ci abu hurayra radiallahu anhu muy wax ni qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ra'a minhum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisaanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman abu hurayra nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ni gis nga ci yéen gis ci say ñoñ loo xam ni lu yella di la nee na na nga soppi loolu ci sa loxo mooy na nga ko faj ca saasa ak sa loxo bu jaree dóore nga dóore bu jaree xeex nga xeex bu fekkee ni man nga loola bu fekkee ni toll nga ci dayoy al inkaar inkaarul munkar bil yad boo ko mënul nga dindi lu bon loolu ak sa làmmeñ mooy nga waar leen xupp leen ngir ñu jàjju ci munkar mooma ñu doon def boo ko mënul la gën a néew nag mooy loola soof la nga bañ ko ci sa xol te loola mooy li gën a suufe ci wàllu al inkaar inkaarul munkar kon jullit bu nekk wareef la ci moom imma farda aynin aw farda kifaaya muy woote jëme ci yoonu yàlla te mooy digle lu baax ak tere lu bon jullit bu nekk dafa war loola dafa war ci moom ka nga xam ni moom ngay woowit mooy képp koo xam ni yàlla def na nga tane ko ci xam-xam wala nga gis mu def loo xam ni amaana da koo def ci réer wala mu def ko ci rëy wala mu def ko ci féetéerlu war na la yow jullit bi saa yoo gisee loolu nga digal ko tere ko kon ñañuy woo ñañuy woo dafa war a doon jullit ñépp ndax mission bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nit ñépp la concerné ndax yàllaa ne ko woon qul yaa ayyuhan naasu inni rasulullahi ilaykum jami'a yonent ya ko jiitu woon ku ci nekk boo daan woote sa woote ci sa xeet la daan yem yonent yàlla nuux yonent yàlla huud yonent yàlla saalix yonent yàlla shuayb yaa qawmi lañ daan xaatabanteeg seeni nit waaye yonent yàlla muusa ak isa ñoom yaa bani israil lañ daan xaatabanteeg seeni nit kon loolu la muy wone rek mooy ni ku ca ne ca ñoom ñooña yàlla daf laa yónni woon ci sa xeet waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla da ko yónni woon ci ñëpp kon yow mi nga xam ni yaay ndonal yonent bi ci woote sa woote dafa war a làmboo ñëpp képp koo xam ni sa baat jote na ci moom képp koo xam ni jàpp nga ni nekk na ci loo xam ni neexul yàlla boobaa kooku la la war ci moom mooy yaatal sag woote ba mu jote ko ndax woote bi yonent bi tënkuñu ko woon ci ab xeet tënkuñu ko woon ci ab dii ab giir donte sax nag ci njëlbeenam ngir at tadarruj fi daawa yàlla waxoon ne ko wa andir ashiratal aqrabin woowal say mbokk mu leen di woo di leen woo ba woo ba woote ba gën a yaatu yàlla mujj ko wax ne ko li tundira ummal qura wa man xawlaha woote ba mu gën koo yaatal màkka yépp waa taayif yépp dugg ci ak la nekk ci weti màkka mujj gi mu ne ko qul yaa ayyuhan naasu inni rasulullahi ilaykum jamia kon nit ñépp la woote yonente bi sallallahu alayhi wasallam concerné wooteem nag la mu ca jublu woon mooy génn nit ñi ci lëndamug réer ak ci lëndamug kéefër ak ci lëndamug ci ci sàkka yóbbu leen ci lëndëmu ci ci leeraayu xam-xam moo tax mu ne ko kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija annaasa min azulumaati ila nuur bi idni rabbihim ila siraati alazizi alhamid man maa la yónni jox la téere téere boo xam ni dama ko wàcce ci yow ngir nga jaare ca génne nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer waaye lépp rek nga teg ko ci ndigalal sa boroom teg ko ci ndigalal seen boroom teg leen ci yoon woo xam ni mooy yoonu yàlla te mooy yoonu lislaam yonent bi subhaana yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yàlla subhaanahu wa taala def ko it mu doon seere yonent bi doon seere ci xeetam ci wooteem woowa waaye xeetu yonent bi doon seere ci yeneen xeet ya wa kadalika jacalnaakum ummatan wasata li takunu shuhadaa ala annaasi wa yakuna arrasulu alaykum shahida yàlla nee na ko man maa leen def ngeen doon xeet wu digg doomu ngir yonent bi doon seen seede ni ki ngeen doone seede yonent yi leen jiitu woon li takunu shuhadaa ala annaas wa yakuna arrasulu alaykum shahida ne yàlla man maa la def nga doon seere say sa xeet waaye sa xeet ma def leen seere ñu doon seede yonent yi leen jiitu woon kon woote jëm ci yàlla it laa budda wootekat bi xam ni dafa war a sàmmonteeg xaalu ki nga xam ni mooy aji woote ji da nga war a sàmmonteeg sa xaalu bopp sàmmonteeg sa man-man sàmmonteeg sa kàttan ca na nga xam ni noonu noonu ngay woote jëme ci yàlla ca na nga xam ni noonu ngay woote jëme ci yàlla ndax it nag woote boobu ngay woote jëme ci yàlla yàlla subhaanahu wa taala du la ca sas loo xam ni munuloo ko du la ca sas benn yoon loo xam ni mënuloo ko ca woote ba laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha comme du la ca sas loo mënul daf ci am wàll woo xam ni waru la yow wootekat bi kam war mooy ki nga xam ni moo amee kàttan am na wàll ci woote woo xam ni buur la war te am na boroom xam-xam yoo xam ni nee nañu ñooña la yonent bi di xaata banteel ci fal yugayyirhu bi yadi ndax buur moo mën a soppee ci loxo ndax boo gisee ku def naka su dul noonu nga jël sa jaasi cor ko wala nga jël sa yar dóor ko bu ripostee loola mën naa jur jur fitna soo xam ni mooy gën a rëy sax fitna yi mooy googa mu mooy yàlla moo tax al inkaaru bil yad boroom xam-xam yi nee nañu ka nga xam ni moom la ci yonent bi xaatabanteel mooy buur wala koo xam ni dafa am ak sañ-sañ sañ-sañ boo xam ni mën na koo may mu mën a soppi ak loxo kon wootekat bi war nga xam sa dayo ba xam da ngaa dugg ci ña nga xam ni mën nañoo soppee ci seen loxo wala da nga bokk ci ñi nga xam ni dañuy mën a soppee ci seenum njàngale soppe ci seen làmmiñ soppee ci seeni orientation ndax lu ci nekk rek dafa am ñoo xam ni ñoom ñoo ko moom yow wootekat bi it war nga jël woote bu ko wutal limite bu ko wutal place bu ko wutal bés bu ko wutal ñoñ foo xame ni rek barab bi manees na faa jaare woote jëm ci yàlla na nga fa woote yaa xam ni yaa xam guddi la yaa xam bëccëg la yaa xam ci biral la yaa xam ci yee ci ci yelu la yaa xam ci mbooloo la yaa xam porte à porte sax nga koy defee waaye war nga jël woote boobu def ko muy sa soxla saa su ne ndax yonent yi woote dañ ko defoon saa su ne boo delloo ci yonent yàlla noo ba muy kalaamee nitam ya te suñu boroom bokkoon na ca la mu ko waxoon qaala rabbi inni daawtu qawmi laylan wa nahaara fa lam yazidhum duaai illa firaara wa inni kullama daawtuhum li taxfira lahum jaalu asaabiahum fi aadaanihim wastaxshaw siyaabahum wa asaru wastakbaru istikbaara summa inni daawtuhum jihaara summa inni aalantu lahum wa asrartu lahum israara ana ni woote yépp yent yàlla nuux a ngi wax ni def na ko nee na yàlla kat man samay ñoñ woo naa leen guddi woo naa leen bëccëg taxut ñu nangul ma taxut ñu wuyu si kon loolu lañ cay jànge mooy yow wootekat bi sa woote bu ko amal ab bu ko wutalu guddi bu ko wutalu bëccëg foo xam ni maqaam ba rek mënees na faa jàllale ak woote jëm ci yoonu yàlla rek profité ci nga jàllale ak woote jëm ci yoonu yàlla ndax nuux ak yonent yépp seenu woote àppaluñ ko woon utaluñ ko woonu guddi utaluñ ko woonu bëccëg fu ñu amee occasion rek dañ ko fa daan jàllale woote ci yel woote ci biral moom la nuux it di wax ni summa inni daawtuhum bihaara summa inni aalantu lahum wa asrartu lahum israara woo naa leen ci biral ci mbooloo woo naa leen yuuxu leen ca kaw woo naa leen dee leen ci woote ga nu ne def naa ko fekk naa leen ku ci nekk fekk naa la sa biir néeg wax ak yow waaye daal ba tey rek munumaa am ci ñoom ñu wuyu ma ndax ku nekk ci nit junni at yu manqué ci mbooloo ciw xeet junni at yu manqué juróom fukk te nee nañu bis la muy dugg tuufaan la mu duggandoog ci tuufaan nga nee nañ weesuwul ñeent fukki nit ala kaw ci ku woote juróom ñeenti téeméeri at ak juróom fukki at kon loola moo tax texul mu xaddi taxut mu yokkat taxut mu am malal benn yoon waaye daa wéy ca woote ga ba keroog yàlla di àtte àtteem di àtte si digganteem ak ñoom woote bi bu ko wutalu barab foo nekk rek war nga fa mën a jàllale ak woote loola yent yàlla yuusuf war na la caa doy misaal ndax yent yàlla yuusuf donte mi ngi nekkoon ci kaso sax def ci kaso ba juróom benn yaat teewul mi ngi doon profité di woote ci biir kaso ba jëloon na kaso ba def ko barabu woote kaay yaa saaxibay sijni a arbaabu mutafarriquuna xayrun am illaahu alwaaxidu alqahaar maa tacbuduuna min duunihi illaa asmaa'an sammaytumuuhaa antum wa aabaa'ukum maa anzala allaahu bihaa min sultaan in ilxukmu illaa lillaahi amara an laa tacbuduu illaa iyyaah daalika addiinu alqayyim walaakinna aksara annaasi laa yaclamuun nga gis woote yonent yàlla Yuusuf ba mu koy def ba muy wax kàddu yi mi ngi ko fekk mu nekk prison mu nekk kaso kon yow it sa woote bu ko wutalub ab ba muy nekk kaso mi ngi wax ak ña nga xam ni ñoom la bokkaloon selil bokk ak ñoom ne ca kaso ba yéen ñi ma bokkal kaso ndax ay yàlla yu wuute yàlla ay yàlla yu bari moo gën wala yàlla mi nga xam ni mooy kenn ki nga xam ni moo noot lépp kookoo gën yéen ñi ma bokkal kaso bi li ngeen di jaamu jaamuwu leen dara lu dut ay tur ak i xërëm yoo xam ni yéen a ko wutal seeni bopp tuddeel ko seeni bopp yéen ak seeni baay xërëm yoo xam ni yàlla wàcceelu leen ci wennu lay ndax yàlla rek a sañ a àtte te la mu àtte mooy ni nañ ko jaamu moom yàlla rek bu ñu jaamu keneen ku dul moom te lii mooy diine di jub ji la ñuy jële foofu mooy yonent yàlla Yuusuf nekk nga mu nekk kaso nekk ci ay loxo nekk ci tëjte teewut mi ngi doon jàllale ak woote kon yow bi nga xam ne yaay wootekat bi sa woote ni nga ko war a wutalul ni nga ni nga xam ne noonu nga ko war a warul a wutal temps naka noonu bu ko wutal barab boo xam ni ca ngay yemale sa woote xam ne bu ñu la nee conférence rek ci ngay woote ci ngay jàngale ci barab yooyu rek waaye bu amul conférence leneen lu jëm ci woote ci yàlla sa yoon nekku ca loola ab wootekat waruta waruta waruta mel noonu beneen bi mooy wootekat bi it na xam ni lañu sàkku ci moom doonul mu forcer nit ñi ngir ñu wuyu si ko waaye jottali woote bi yàlla bi rek a ko war na ko jottali waaye kay gindikoo ku dul gindiku loola nekkul ci loxo moom moo tax yàlla bu yonent bi masaa jàmbat na nga xam ni noona la nit ñi yéexe ci wuyuk wooteem ndax boo xoolee yonent bi woote na juróom benn at bu ñee la Omar ibnul Xattaab mooy ñeen fukkeelu nit bu dugg ci lislaam te mi ngi dugg ci lislaam ci juróom benneelu atuk woote yonent bi kon nga xam ni teewu yokkute gi néew na lool waaye jàmbat googu yépp ak néew googu yépp teewul yàlla daan wax yonent bi saa su ne wa maa ala rasuli illa al balaagul mubin li ma la war rek mooy nga jottali leen amaa nag kay jub ak ku dul jub amaa jël ak njub ak buyu si def ko ci xolu nit ñi yow yonent bi mënuloo ko kadalika allahu yudillu man yashaa wa yahdi man yashaa yàlla nee na moom mooy sànq mooy sànq ku ko soob waaye it mooy jindi ku ko soob yow la la war mooy jottali rek la ma la jottali lool amaa kii wuyu si ak ki dut wuyu si loola nekkul nekkul ci sa loxo la la war rek mooy nga gindi nit ñi hadiya irshaadin wa dalaala ndax wàllu gindee ñaari façon gindee moo am gindee ci def hidaayatu ilhaamin wa tawfiq ak hidaayatu irshaadin wa dalaala hidaayatu ilhaamin wa tawfiq googa yàlla rek ko moom dinde nit ki mooy def ak jub ak baax ak gindiku ci xolu nit ñi yàlla nee na man rek maa ko moom keneen moom yonent bi bi mu nammee bàyyi taxam gindiku te yàlla nammul mu gindiku yàlla dafa ne ko innaka laa tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha du ni yaay gindi ku la soob man yàlla maay gindi ku la so ku ma soob kon jël ak gindiku def ko ci xolu nit ñi bi tawfiqi wal ilham yàlla rek ko ko moom kon yow wootekat bi bul sonn ci nit ñi neen force nañu nañ la wuyu si waaye sonnal rek ci jottali leen waaye bu fekkee ni nag won nit ñi yoon wi tegtal leen yoon wi jàngal leen ko xamal leen ko loola yonent bi mën na ko wootekat yépp mën nañ ko moom la yàlla di wax yonent bi ne ko wa innaka la tahdi ila siraatil mustaqim yow yonent bi kat yaa ngi gindee jëm ci yoon wu jub wi fële mu ne ko munoo gindee fii mu ne ko mën ngaa gindi fee da koo dàqal kon hidaayatu tawfiqi wal ilham fii mu dàqal mu saxalal ko hidaayatul irshaadi wa dalaal kon wootekat bi na nga xam ni ka ngay woo la la war ci moom rek mooy nga woo ko xamal ko jàngal ko yee ko loola rek mooy sa rôle ci moom amaa nag mu wuyu si la amaa nag mu amuk gindiku amaa nag mu tuub dugg ci lislaam wala mu jàjju bàyyi la muy doon def loola nekkul ci sa loxo ci loxoy sunu borom la nekk subhanahu wa taala ba tey wootekat bi war naa xam ni comme dafa doon ndono ci yonent yi war na xam ni woote bii kat daf caa war a nekk giiru dundam daf caa war a sax ba fàwwu donte sax kenn wuyuwu ko ci kenn wuyu siwu ko dafa war a sax ci woote bi ba faw donte kenn wuyu siwu ko buñ la nee nu wax def na junni at yu manqué juróom fukk di woote ci yàlla te ba muy ba tuufaan di ñëw ña duggoon ca gaal ga weesu weesu ñu ñeen fukki nit te mooy ñi ko gëmoon bu ñere yonte sallallahu alayhi wasallam woote ne juróom benn at omar moo nekk ñeen fukkeelu nit bu dugg ci lislaam loolu yépp lañ cay jëlee mooy ni wootekat bi bu mu yokkat bu mu découragé waaye la wéy ci wooteem donte sax woote na téeméeri at te kenn wuyu siwu ko yonent yàlla luut woote na yàq yu baree bari waaye keroog ba yàlla di alak nitam lañ fay dégge mooy ni kenn wuyu siwu ko woon lu dul ñaari doomam yu jigéen rek la àndaloon te keroog ba yàlla di di di alak ay nitam beneen bi yow wootekat bi war ngaa xam ni yoolub aji woote nekkul ci nit ñi ci loxoy suñu borom la nekk subhanahu wa taala li ngay woote li ngay jàngale kenn mënu laa fay yàlla rek la mën a fay kon sa woote ci yàlla bu ci sartante ñu lay fay bu ci sartante ku lay embauché ngir nga féete woo woote bu amee nag ku daba ku tabarro te yàlla rek tax taawu nag yow alal birri wa taqwa bu boobaa loo ca amee nga xam ni yàlla la ko wërsëgal waaye bu mu doon sart ci yow ne doo taxawee woote googa lu dut ni dafa am ku la jël en charge pour nga mën a joxe sa woote te anam la yàlla ko suñu borom digalee wootekat bi kon war naa xam lool ndax yonent yi ridwaanul salawaatullahi wa salaamu alayhim saxaaba yi ridwaanullahi alayhim ñoom ñépp daawuñu fayeeku ci woote jëm ci yàlla subhanahu wa taala moo tax yàlla nan ci làmmeñu yonent yàlla nuux fa in tawallaytum fa ma saaltukum min ajrin in ajriya illa ala allahi wa umirtu an akuna min al muslimin yàlla rek may fay kenn mënumaa fay ci yéen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it waxoon na lu mel noonu qul laa asalukum alayhi ajran illa almawaddata fi lqurba lii ma leen di woo soxlawu ma ngeen fay ma soxlawuma lu ngeen may jox soxlawuma ngeen jiital ma soxlawuma ngeen fal ma man daal la ma soxla rek mooy lii ma leen di woo jëm ca ngeen wuyu ma ca rek ndax ngeen man caa jaare te e wootekat bi it na xam ni dafa amee taxawaay woo xam ni mooy taxawaay yi gën a tedd ci taxawaay yi amee palaas boo xam ni mooy palaas bi gën a ya bi gën yàlla gën a bëgg ci jaamam di wax katu loo xam ni mooy wax ji gën a rafet ci wax yi laa budda mu yëgal boppam loolu ba tax ci biir wooteem mu yëg ci al izza ndax izza googu muy yëg ci wooteem da koy dimbali ngir mu mën a perse saa su ne di gën a yokk ak anam gi nga xam ni ci lay wootee di gën a dolli ay pexe ngir ñamuy woo man koo wuyu si ngir ak wooteem gën a yaatu na xam ni kat la muy wax mooy wax ji gën a rafet gën a taaru ca wax ya wa man axsanu qawlan mi man daa ila allahi wa amila saalixan wa qaala innani min almuslimin yàllaa ne ana ci gën a rafet wax wala kenn gën ta rafet ay kaddu kenn gën ta rafet ay wax ka nga xam ni dafay woote jëm ca yàlla te boole ca muy def lu baax ba pare sax ci lislaam di féddali saa su ne ne moom léppam da koo jox sunu borom wa qaala innani min almuslimin kon ki gën a rafet wax mooy kiy woote ci yàlla ci gën a rafet jëf mooy ki nga xam ni it mi ngi woote tey jëfe la nga xam ni moom lay woote jëme ca te sax ci lislaam tey ndamoo ak julli tamit kooku mooy ki gën a rafet jëf mooy ki gën a rafet wax kon yoolu aji woote ji na xam ni ca yàlla la nekk na xam ni palaas ba mu taxawe palaas la boo xam ni palaas gënu koo kawe ci kaw suuf ndax mooy wazifatu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kon kii woote na gëm ni fukk mu woo mu dugg ci lislaam ci sababu wooteem booba na xam ni kooka yool bu mu am ci jëf ya muy jëfe ci ndigal ak bàyyi ya muy bàyyi tere yool wu mu ca mën a fàggu moom dana amaale ci yoolu kooka bu doon junni nit it na xam ni bis bu ne ku ne yool wa nga am wa mu am ca ñoom moom danañ ko fàggul ñooña te du tax dara wàññeeku ci yoolu ñooña loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni man daa ila hudan kaana lahu min al ajri misla ujuri man tabi'a laa yanqusu dalika min ujurihim shay'a képp kuy woote jëme ci njub da nga am sa yoolu bopp ab yoolu képp ku la topp ci njub googa te du wàññi ci yoolu ñooña dara mu ñëwati yonent saa sallam di wax ali ibn abi talib ne ko fa wallahi an yahdi allahu bika rajulan waxidan xayrun laka min xumuri naami waat naa ci yàlla islaam sa yaay sabab sa nga fexe gindeeku gannaaw ba mu nekkee ci ak càq xamal ni loola rek moo gën ci yow géttu gëléem goo xam ni gëléem yu mat sëkk lañu gëléem yu xonk cur lañu am na riwaaya bu ñëw bu wax ni xayrun min ad-dunya wa ma fiha woote ba yàlla gindee kenn ci sa sabab moo gën àdduna ak la ca biir àdduna kon wootekat bi bu fekkee ni yooya ay ndénkaan la ci yu ñu jëmale ci moom ak ay melokaan yoo xam ni da koo war a melowoo naka noonu wootekat bi war naa ngànnaayoo ci wooteem ay gànnaay yoo xam ni dana ko mën a dimbali ngir wooteem mën a yaatu waaye ngir wooteem mën a tasaaroo waaye ngir wooteem mën a dugg ci xol yi bokk na ci ngànnaay yooyu mooy mu xam mu am xam-xam saa su ne rek nay jéem di yokk ak ràññeem waaye di yokk it ak xam-xamam kon xam-xam mooy gànnaay bu jëkk ci ngànnaayu loo xam ni wootekat bi da koo war a gànnaayoo moo tax sunu borom di wax ni faalam annahu laa ilaha illa allah wastaghfir li dambik na nga xam ni lay wér mooy ni amut benn buur bu ñu war a jaamu bu dul yàlla kon xam ni laa ilaha illa allah te laa ilaha illa allah doon baat bi gën a rëy ci kaw suuf xam ko loolu du xam gu tuut loola xam-xam bu yaatu la kon borom xam-xam bi wootekat bi dafa war a doon borom xam-xam xam lépp loo xam ni dafay dugg fi itaaril xalaal ak loo xam ni dafay dugg ci alxaraam xam li dagan lépp xamit li xaraam lépp loola da koy dimbali la muy digle mu xam ko waaye it la muy tere it mu xam ko dana ko dimbali mu xam ni lu war de lu dig lu xalaal ak lu war ak lu ñu sopp loola la ñuy digle jëm ci dana xam ni lu xaraam ak lu ñu sib la ñuy tere jóge ca kon ràññee gi muy ràññee xam gi muy am gi muy am xam-xam dana ko dimbali mu mën a ràññee lañu war a digleeg lañu war a tere waaye dana ko dimbali mu bañ a jaxase ndigal yi bañ a jaxase bañ a jël al maaruf def ko munkar wala mu jël munkar def ko maaruf kon ngan jëkk wa nga xam ne da ko war a yóbbuloo mooy mu ngànnaayoo li nga xam ni mooy xam-xam boo xam ne xam-xam bu ma sëkk la ñaareel bi it moom wootekat bi dafa war a am diqa ca la muy woote ca xam-xamam bu mu doon xam-xam boo xam ni dafay doon xam-xam bu légère xam-xam bi dafa war a sew te borom xam-xam yi nee nañu xam-xam bu sew xam alxalaal wal xara xaraam jafewul xam ndigal yi xam tere yi jafewul waaye bokk na ci li gën a am njariñ ci woote mooy borom xam-xam bi na xam alaaxira ak la aj ndax boo gisee ñu ne waare waare lu baree baree bari waare waare ci lu jëm alaaxira lay doon ci lu jëm alaaxira lu baree baree bari ca loola la ñuy waaree xam lu jëm ci aljanna xam lu jëm ci safara xam lay aju foofa ca bis pénc waaraatekat yi la ëpp ci seenug waare foofa lañ ko war a jëmale ndax lu jëm ci julli di ca wax am njàngale la lu jëm ci koor di ca wax am njàngale moo ca ëpp lu jëm ci wax njàngale la waaye wax di waxtaane lu jëm ci bis pénc boroom xam-xam yi nee nañu amul dara lu ko ëpp jeexital ci ab wootekat mu koy mu mu mu bari li mu koy wax mu xam lool lay aju ci wàllu wàllu dee lu aju ci sukuraat lu aju ci xaal yi doom aadama bi nekk ci buy faatu gannaaw bu faatoo lu jëm ci adaabul qabri ak naimuha lu jëm ci suaalu munkar wa nakiir waaye mu fekk xam lool lu jëm ci bis ba nit ñi di wuyu ji suñu borom bis penc lu jëm ci almizaan lu jëm ci mahshar lu jëm ci siraat lu jëm ci safara lu jëm ci aljanna mu xam lu ca lu xam ko xam gu yaatu lool ndax la ëpp ci waaraate ci wàll woowa la gën a jëm lu wuutee nag la ñu xam ni moom la ñu gën a miin ci sunuy waaraatekat yi la ëpp ci sunu waaraatekat yi seenug waaraate ci wàllum njàngale la gën a jëm waaye jëmut ci wàllu luy tooyal xol yi lu baree baree bari taag waaraate tooyal xol yi mooy tax nit ñi wuyu si la aji waaraate ji war nga fexe ña ngay waar ngay jóg di leen fekki ngay jóg di leen fekki ndax woote bu mel nii ci jumaa yi ak ci jàkka yi ña mu soxal rek ñooy ñu wuyu si ña nga xam ni la ci ëpp waaru nañ ba noppi ña waaru ba noppi ñooña ñooy ñooy ñëw ci jàkka yi ñooña ñooy fekk ci jàkka yi ña am cofeel ci lislaam ñooña ñooy fekk ci jàkka yi ñu bari ca ña xam ne ñooy teew ci jataay yii koo ca bàyyil boppam mën naa demal boppam te xam la ko yàlla digal xam la ko yàlla tere ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye kon woote gi fañ ko war a jooyale fa mu war a ëppe mooy ñi nga xam ne du ñuy teew ci jataay yu mel nii moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan génn di fekk ña mu daan waar yonent yi dañ daan jóg di fekk ña ñu daan waar fañ ci seeni kër noo ko wax na ko woo naa leen guddi woo naa leen bëccëg woo naa leen ci bérél woo naa leen ci yelu fekk naa leen seeni néeg fekk naa leen seeni kër kon waare te bi ëpp efficace efficacité mooy waare boo xam ni ka ngay waar da nga koy fekki fa mu ne fekk ko ca la mu ne boo xoolee mbooloo mi ëpp réussite ci woo ci jamono jii surtout ci réewu tubaab yi ak asiatique mooy jamaatu tablir dafa bokk ci mbootuk seen réussite mooy ña ñuy waar ñoom ñoo lay fekki fa nga nekk ñu ngi ci bus yi di waaraate ñu ngi ci avion yi di waaraate ñu ngi ci métro yi di waaraate ñu ngi ci fépp di waaraate di dugg sa kër di la waar di la woo kon ñu bàyyi xel waare woote ci yàlla ñaar dafa am daf ci am solo te dafa mel ni nit ñi dañ koo xaw a ginnaaweel benn bi mooy fekk ka ngay waar ca fa mu nekk fekk ka ngay woo ca fa mu ne bu ko woo ngir mu fekk si ñaareel bi mooy lu jëm ci wàllu dee ak wàllu xuppe ak yu jëm ci wàllu yooyu ci wàllu àjjana ak wàllu safara lu jëm ci wàllu bis pénc ci di ko bari li ñuy fàttali nit ñi ci njàngale mi ak ci woote bi loola laa budda it ñu bàyyi ci xel ne loola daa war a bari ci sunuy woote yonent yi salawaatullahi wa salaamu alayhim seen woote loolu daf caa bari lool la nekk ci woote ci ci ci inzaar ci wax ci wàllu aljana ak safara bari na ci alquran la ñëw ci wàllu dee bari na ci alquran la ñëw ci wàllu almizaan la ñëw ci wàllu assiraat li jëm ci wàllu mbugal bari na ci alquran te yooyu dañu bari dañu war a bari dañ koy wax dañu war a bari dañ koy fàttalante ndax yooyu moo mën a tooy loo xal fàttali nit ñi ragal yàlla am na ci nitu yàlla yu yu mag yoo xam ni. tey lu jiitu ñuy ñuy sóobu ay ay dañu nekkoon ci ay mbiru àdduna kese ku demee ni ku demee ni zunnuunil misri masalan bis lay dox rek dégg kuy jàng benn am am benn waay rek ne ko alam yaani lilladina amanu an taxshaa qulubuhum li dikrillah li ko delloo ci loola daf caa bokk loola daf caa bokk am nañu ne bisrul xaas yi tamit laaya jooju moo tax ba mu ko déggee ci la daw summi dàll ya keroog la gëj a sol dàll ba keroog na mu génne àdduna nekk rek ci ci ci ci ci ci dal di sóobu kon waare loola daf caa war a bari bu fekkee ni nag lu jëm ci ñañuy woo ñañuy woo bari nañu waaye ñi ci jëkk mooy yéefar yi ñaareel bi bokk na ci naafiq yi ndax yéefar daa bañ ba lislaam amee doole mu wéy ci mbañam ne du wuyu si waaye teewul bu ñu bàyyi nañ koy woo te boo xoolee sunu woote daa mel ni ña nga xam ne dañoo seen bopp ay wootekat tuddee seen bopp ay duaat seen woote la ci ëpp ci biir jullit ñi la te nag étape bu njëkk ci woote mooy ku dul jullit nga woo ko ci lislaam loola mooy cosaan ci woote ab jullit lu ca ëpp jàngal ko la ak fàttali ko ak laabiire ko jullit des koy laabiire des koy jàngal des koy fàttali ku dul jullit nag cosaan ci woote ñooñoo tax ab naaf cosaan ci woote naafiq yi la kon ñaareelu ña ñuy woo mooy naafiq yi ñetteel ca ña ñuy woo mooy mooy yàlla ñi lay doon ak jàngale lay doon ak laabiire lay doon kon ñii ñooy asnaaful maduwin kon woote ci yàlla bu ñuy tënk dañ naan mooy wazifay yonent yi yow mi nga xam ne nag da nga bokk min warasatil anbiya wazifa boobu boo ko jëlee bu ko bàyyil guddi bu ko bàyyil bëccëg na nga ca tegoo na ca yonent yi ridwaanu salawaatullahi wa salaamuhu alayhim tegoo na nga ca tegoo na ca saxaaba yi tegoo loola mooy lii tax woote ji réussi dañu ñu jox ishaara sànq ci ni ñi nga xam ne dañu doon ay gan doon suñu mbokk yi jóge misra doon bi asatul azhar di jàngale fii ci tóokóor ba ñoom it dañu bokk ci gani jataay bi ñu waxoon ni bu ñu leen mënee tënkal tuuti ci ñaari minute la nga xam ne moo doonoon mawdu waxtaan wi ala kulli xaal nuraxibu bil ixwati alkiram bi asat al azhar alsharif wa naqulu lakum marxaban wa ahlan wa sahlan wa marxaban bikum fi rixaabi hadihi al muxaadara wa fi rixaabi hada almasjid almubarak وقد كان موضوع المحاضرة هذا اليوم هو الدعوة إلى الله مفهومها وأصولها وقد ذكرنا مفهوم الدعوة وبينا أقوال العلماء في ماهية الدعوة وفي مفهومها وكذلك ذكرنا ما يتعلق بتعريف الدعوة اصطلاحا وموضوع الدعوة كذلك وذكرنا أيضا أن وظائف الرسل هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بل كانت الدعوة إلى الله من الواجبات العينية في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام لكنها أيضا تدخل في إطار الواجب العيني على كل من تصدى وأصبح وريثا للرسل عليهم الصلاة والسلام إذا الدعوة إلى الله تكون أحيانا فرض عين على بعض العلماء وتكون أيضا فرض كفاية على بعضهم وتكون أيضا من المستحبات والمندوبات على الباقين وإن إلى الله واجبة من واجبات كل مكلف حسب ما علمه وحسب ما وصل إليه معرفته بحقيقة ما يدعى الناس إليه وذكرنا أيضا من أركان الدعوة ومن صفات الدعاة وما ينبغي عليهم أن يقوموا بها وما لا ينبغي عليهم أن يقوموا بها كل ذلك لأجل نجاح دعوتهم وللوصول بالناس وبالدعوة إلى الهدف التي الذي رسم رسمت الدعوة لأجله فهذا هو خلاصة ما كنا نتحدث ونقوم حولها في هذه المحاضرة وبارك الله فيكم جميع الحضور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته